ku leen voté lan leen mën a defaat Sénégal te président Ousmane Sonko li gën a jafe da koo xam mooy dafa xam état bi te état bi xamuñu Sonko moo tax lenn rek lañ mën a def ci Sonko mooy jaay ko doole te jaay doole googu li ñu jàpp ne moom lañ ci amee ndam mooy jàpp Sonko tëj ko te xam nga lii gën a defetu état bi mooy jàpp Sonko tëj ko. mooy li nga doon wax mooy dëgg moo mën doole. moo mën waaye dëggay mujj. sëñ te jàpp Sonko dafa nekk cuunewu état bi. dañoo créé waat lu kenn xamul wallahi Sonko tay la ko nit ñi gën a bëgg. dañoo créé ay Sonko so ñii di feeñ ñii. Mhm. ku ci wax te buñ demee ba Sonko ne wooteel leen diw ku dem di voté ji doo gis diw Sonko ngay gis. Mhm. xam nga lu garaaw a noonu de. bu Sonko joxoñee ne votel leen diw ku dem ci urne yi boo demee doo gis diw Sonko ngay gis. mais mais sëñ Mara am na ñoo xam ne njort nañ. ba léegi njort nañ ba léegi ni mhm. élection yi dañ koy randal ndax gis nga loolu. waaw xam nga loolu. Euh, buñ koy wax mooy dañoo dañoo dañoo dañoo yab nit ñi ñoom xam nga luñ bëgg continué waat Sonko génn ñu defaati tappale ñu mel ni mel ni ku lii état la lii duy caaxaan. Mm-hmm. lii kenn moomu ko. ñi nga xam ne ñuy bañ élection am yépp seen bopp la ñuy defaral. Mm-hmm. du njariñu senegal man gisuma élection yu dàq man gisuma loolu xam nga lu tax. Mm-hmm. buxuma te jëkk seet nag. seetuma ko naan gisuma ay kii damaa gis ne. ñu bëgg seen biir ñoŋ ñooy wax wax yooyu ba pare mel ni ku nekk ci opposition bi ta maanaam yëfi du loolu. li tubaab di ay opportuniste waaw yow xam nga li ma bëgg a wax loolu seen i seen seen seen i yitte la. Mhm. maanaam. protéger seen euh, i merci moom lañ bëgg. Mhm. waaye du demee noonu. Macky Sall moom fi mu ne nii boo bëggee dégg dëgg. Mhm. buñ ko xiyaatoon na ko nañ tëgg procès mën na leen Sonko mooy sama candidat. <laughs> ku dem ba mbiram toll foofu buñ dàqee élection yi boo ñëwee ku ñëw dangay booyub Sonko moom man sax Macky. ci élection yi bu Macky sampoon dem. Mhm. man ku ko joxoñ neme naa na ko na élection yi dem ñu ànd ak moom dem. d'accord sëñ bi kon man aw kon wax mhm. ñi ñi nekk ci sénégalais yi nekk seen biir kër noppi. waaw di xaar. Eh, eh, sànni jamra bi ñoo ëpp gis nañ eh, ki nga xam ne moo di Pape Ndiaye waaw Walfu journaliste la waaw mu invité woon famille détenus yi ñi ñu tëj ci kaso bi ñu invité seen i famille waaw invité Cheikh Mbacke Kassé bokk mm-hmm. émission ba dafa yàqu ndax ñu wax naan ñun denc ci kaso bi wax wax ju ñaaw loolu kañ la woon barki démb émission bi sax dañ ko dagg ah. ñu attaqué Pape Ndiaye naan ko yaa yàq yaa yàq émission parce que waroo invité ñoo xam ni dañoo am hmm. xol ngay hmm. invité ko bokk ci pouvoir mu naan leen li ñu leen jàppee ñoom ñoo ko def mais nag manifester pour Sénégal mais nag mais nag yaaram ma euh, Sonko hmm. man Sonko sant naa ko Sonko dafa feeñal ñu bari su côté journaliste yi dafay bari ñoo xam ne ay bukki lañu woon sàngoo deru béy Sonko dafa Sonko te dana sëlbuwaat sax dana am ñu feeñaat ñeneen ay journaliste wala ñeneen ñu maanaam Sonko wàllu woo dem rek ku ci nekk fi mu ne sa vie sax dëgg dëgg dëgg feeñ na journaliste lissi dem bawuma fenn foo jàpp ne waxuma ko rek ca lañ bokk ñii am na ñoo xam ne tey jii Sonko wax na ñu xam seeni jikko te alali àdduna rek la ñu daw ñii am na ñoo xam ne tey jii nit ñi fu kawee lañ leen tegoon dem nañ ba xam ne bëgguñu réew mi gëmuñu ko boo may wax ay journaliste yu toj ak ay plateau bu kii sawaay fii boo bëggee dégg dëgg ñun dëgg lañu wax ànduñu man xanaa xamoon ne Sonko sax man ànduma moom xam nga tax man dëgg laa àndal te damaa gëm ne dëgg mënoo koo wër romb fi Sonko. yàgg nga ko wax te Sonko boo bëggee dégg dëgg. Mhm. moom mooy dëgg ji nga xam ne moo war a sauver Sénégal. te xam nga loolu du pexem journaliste du ay du ay palaato yoo xam ne da ngay jàpp ne li ngay wax di prop loolu loolu déedéet yëf yi du foofu. Mhm. yëf yi dafa leer nañ ñi ci ko xam. man élection Sénégal yu mas di ñëw yu yee gën a dal sama xel. te xam nga fu ma ko teg mhm. nekkuma di waxantu ay wax yoo xam ne ay nii nii de man yenn naa nit ñi bu yàgg Sonko ci boppam mbiram dafa nekkul ci mbir moo xam ne nit mën naa tëb boo wax yàqal ko wala ngay def keroog ba nga gënee am énergie yàqal ko mhm. keroog nga dugalaat ñeneen ci projet bi d'accord ñi nekk biir Pastef ñi nga xam ne bokkuñu Pastef ñoo leen ëpp doole te li ngay xam ne Pastef parti bi ex Pastef ndax sax nag ex Pastef moom fi mu ne yàlla nañ ko banoon sax. Hmm. moo moo dàq Pastef. <laughs> ñu bañ koo dissoudre waaw ex Pastef li tax mu dàq Pastef. Hmm. ex Pastef daa ëpp doole. Hmm. ci ay levée de fonds. ex Pastef ëpp doole ci mbooloo. est-ce que xam ngeen ne ex Pastef levée de fonds bi yow bi ñu ko gisee. plus de quatre cent milliards quatre cent millions. waaw dajale ko loolu ci ay fan yu néew. est que xam nga benn mbir. Sonko buñ ko joxoon réew mi. dama ne la buxuma la dara. joxe boole koog di di di di di di jooy. ak joxe boole koog di ree xam nga mooy lan. mooy lan da joxe jooy ne bu ma yëgoon joxe lu ëpp lii. Mhm. joxe lu bari ree daan ne li ma joxe dafa tuuti. loolu ku la jox nag jox lam réew réew moomu dox rek la mën a def. Mhm. mais ñu waxante dëgg tey am nañu yor ay milliards soxare nañ koo génne te man xam naa nit ñoo xam ne ay ay kilifa lañ man nit contacté na ma. di ma wax ay waxi mbir. Mhm. yoo xam ne na ma état wu nangam nangam de bu ñëwee ca laay def samay investi nangam nangam. nga xam ne bu dul dara dañoo yéene waa ji ay levée de yoo xam ne boo koy dégg musul am ci taarab Sénégal ñu jox la ba noppi laaju ñu foo ko dugal loolu yàlla nelawalul nit ñi de ñu jël seen dërëm yëpp fukki dërëm yi di ko dugal foofu ni n'importe qui de mm-hmm. yàlla dafa dafa dafa yee nit ñi ci jamono jii te xoolal Afrique central Afrique gépp mm-hmm. fépp ay révolutionnaire la fa feeñ mm-hmm. ma wax la lu doy waar Mali ku fa ne dem Burkina Assimi Goïta xoolal réew yooyu jamono ji seen président yi génnee ay révolutionnaire lañ ay discours Mandela lañ yor. Mhm. ay discours. comment Sankara lañ yor. Cheikh Anta Diop jël leen ak Sonko ñooñu ñi fa feeñ. Mhm. yàlla yàlla tàccu nañu de ci waa ji. fecca des. ña feeñ fee dañoo yori tëni waaye gos bi il est sarax yi <laughs> bi xam naa li ñuy jotaleen ci waxtu na mhm. mais ci wàllum sarax yaa ngi ko doon wax à chaque fois mhm. wàllum sarax bu ñuy sarax ak sarax mhm. sarax ak seet du ma ko tàyyi di ko wax nit ñi dama ne la ku xam sa sarax jërul ñaandu te nit ki balaa ngaa xam sa sarax xam da koy seetal man foofu laa ne am na ñoo xam ne dañ di di leen di leen massawu nag man duma ma def vidéo di làqatu ci ginnaaw fenn dama naan man faa nga laa damay ñëw na la nii ngay def nga jaar fa ñu seetal la mooy numéro yi ci suuf mm-hmm. maa ngi ko wax waaw dafa am ñoo xam ne dañu utiliser waaw dañu utiliser samay tur naan lii mooy sëñ Mara numéro nga waaw wala nga ñëw émité baatu sëñ Mara def ci miniature bi sëñ Mara mm-hmm. buñ tijjee vidéo bi duñ gis sëñ Maraay wax mm-hmm. yow nga kii c'est que sëñ Maraay dafa bari mënuma seetal ñëpp nag mais bu leen yàkkamti woote leen ci bi ci suuf nit ki mën naa woote tey sax ñu seetal ko tey hmm? man seet gii may def yàllaa ma ko nattoo ñu bañ a yàkkamti ñu bañ a yàkkamti yàllaa ma ko nattoo mooy ku ci sa wërsëg ne moo tax ku ma nërta seetal wala mënuma ci say mbir dara yàlla boo ma woo ci barkeb alxuraan mhm. man xëccoowuma lii lu ma yàlla wan la ma koy gis di ci jàppalanteeg sénégalais yi mhm. waaye nit ki bu xamee saraxam mhm. jërul muy takk téere première deuxième mooy boo xamee sa sarax jërul ngay gis nga nit day sonn ci dara te xamul ne li muy sonn moo ko moom sonn ci dara te xamul li muy sonn moo tey jii nit a ngi nekk ci bërëb di fa liggéey te xamul ne bërëb bi li fay dox lépp moom moo koy doxal borom bërëb bi dana seetlu bañ ne ko diw mii de moo yor wërsëgu place bi mm. te diw moom mënta jariñ boppam te ma ngay jariñe mm-hmm. daa <laughs> lépp daal mu ngi mais luy fànq dee sarax sarax day ñëw fekk ku naroon a faatu léegi nga génn sarax nga génn nangam oto bu sarax nit ñi dañ koo xamut te dañ koy fowe na la mën a nit jaare ba dëpp sa sarax ba def loola loo xam ne moo tax man léeg-léeg ma seetal nit barki alxuraan xam ne kii diw sàngama tée mbiram léeg-léeg ma seetal nii na ko diw sàngam mii moo la def nàngam daf mhm. fi ne bu ñu la liggéeyee boo mooy dama naan diw a ko def dafa doy waaw dama lay dama seetal dama naan li may seetal ni téye ko nga enregistré ko mhm. loolu man rek maa koy wax jël ko ndax ala kulli xaan daan ci non dana dan dañ dañ ciy nekk puisque làq-làq lu ma la ta li may def lu ma lu ma man la mhm. ma macha allah pëgguma dënn de moo tax ma doon wax sama waxtaan mujj nan waaye wutal leen ma concurrent waaye <laughs> lii nelaw yeewu <laughs> du yomb de ñu wax <laughs> même bu dee sax ñu wax benn bu am fi doon wax. <laughs> Eh, barki dem boo Njaay la daanu ci match Sénégal Gambie ne Gambie dañ koy day door Sénégal. ah man de man ma c'est que gars dañoo roy sëñ Mara ba faf man. Mm-hmm. Euh, Abdou. Mm-hmm. man seetagu ma. seetagu li may gis lépp nga baal ma dama koy ragal a wax ci nit. waaw man damay gis nit di gis nit. moo tax euh, nit ñaa ngi fawee seen àdduna. Mm-hmm. ci wàllum seet tëb rek man la njaar gu jóg nga woo ko na ko seetal ma mu wax la sab sarax nga def ko dëpp sa sarax mënatoo am dara mhm. te sarax bi nga xam ne danga ko koo mhm. te waroo ko def mhm. lim lay yàqal boo ko xamoon doo génne sarax mukk d'accord mi ngi mel nit koo xam ne dañ laa jox na la dugalal fii sa pièce d'identité sa lan nu ma numéro nu mu tudd euh, sa numéro d'identité sa numéro d'identité dugalal ma ko fii nga composé jaawale boo ñëwee bu ñuy seet sa tur ci ci ci fichier bi duñ ko gis waa seet noonu la mel wala jox ma sa numéro nga yokk ci ab deux wala mu yokk ci un te chiffre yooyu ma lay jox chiffre boo ci jël tembe tembe tembe damay wax yow li la dal ak fi nga toog. kon dama lay woowee sëñ Mara borom fichier bi. borom fichier bi waaw waaw waaw waaw boobu la boobu baax na nag Abdou jërëjëf. borom fichier borom fichier bi waaw waaw tey tey na naa tey affaire yi neex na surtout fichier bi loolu dana am solo ndax da ngay jox nit ki code yu baaxut. Mhm. loolu lépp ci seet la wax nit ki defal nii yow koo xam ne dafa war a am sarax boo xam ne day dindi kumte. Mhm. nga jox ko saraxu euh, boo xam ne da koy def di gën a umu <laughs> waa nit ki noonu loolu nu mën a nekkee te pourtant day am de danga gis koo xam ne day sonn lool man ñaan lu naa fu ne mhm. man def naa fu ne puisque mënuñu koo gis nit koo mënta gis mënoo koo ñaanal gis ñu ko ci fichier bi fichier bi du dox boo ñëwee te fichier bi bi kee yor bi bi sa ak bi maara yor bokkul fichier bu baax bi mhm. bu ma fëgg na maa yor bu baax bi de waaye <laughs> fii si ma yor yoruñu ko de moom <laughs> jërëjëf yàlla nga xam ne lu toll ni magistrat jóg na nañ def nangam ñu xool di laam-laamee dañuy def dañuy xaar état bu def nangam te booba kilifa yëpp a ngi fi toog man looloo ma metti mhm. ñu jàngi woon droit ñi ngi fi toog te kenn ñemewut a jël say responsabilité wax liy dëgg ñu néew ngay gis ñuy wax te bu ñuy wax da xam ne